asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ Omar Bousso xalifa sëriñ Mbacke Bousso mooy yëkkati kàddu yi cant ak yooyu ngërëm di ko jëmale ci mbooleem njabootuk sëriñ Touba xaadim rasul gépp tàmbalee ko ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom yàggal ko fi lool dolli ak wéram waaye di santit mbooleem njabootuk sëriñ Mbacke Bousso gépp bàyyiwu ci kenn di xamal nag ne fas na yéenee tàmbali liggéey bi nga xamante ne bii moo di teen bi Serigne bu sa gasaloon boppam te Serigne Touba Khadim Rasoul defoon ca ñaanam googee teen boobu nag la Serigne Omar sa wax ne tàmbali na liggéey bi di ci tàllal loxo mbooleem njabootuk Serigne bu Bousso gépp waaye di ko yëgalit mbooleem njabootuk Serigne Touba gépp waaye mbooleem koo xam ne bëgg nga lu baax fas na yéene daal liggéey ko ba dëppale ko ak jamono ba saa yoo ubbee ab na ndox génne ca teen boobee nga xam ne ca la ñaanuk Serigne Touba Khadim Rasoul ga tàbbi woon liggéey boobu nag Serigne nee na képp koo xam ne bëgg nga cee def saw ñaq mën ngaa jokkoo ak moom wala moo xam muy ciment wala fer wala suuf wala sax oto bu mën a tibb suuf nee na xeebu ci kenn mu ngi ciy tàllal loxo ñëpp di ñaan nag képp koo xam ne daf nga ci saw ñaq yàlla nga tàbbi ci biir bayit woowu Sëriñ Tuubaa waxoon ne waqdi hawaaija lazina daamoo fii xidmati wa hablahum maaraamoo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.